ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi ci diggante Jokkel ak Kewel mbokk yi mbokk na deuxième combat spécial baa ngi noonu dimanche 14 août journée Jam Production Jokkel bi mu fi mujj Ada Fass ko daan kéwél bi mu fi mujj diggante mag Tidiane Faye la dañoo mag si niil yi Jokal moom la ñu jàkkaarlool kéwél moom la woon ginnaaw Jokal pied droite kéwél pied gauche ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar dañuy xeex wala dañuy bëre Jokal wàcc na kéwél daa mel ni ku ko bëgg cokkaas waaye Jokal aj na garde bi Jokal mem na léegi Kewel ngi miime rek waaye demagul Jokal Kewel Jokal sigiwaat na wàccaat Kewel ngi koy xool ci biir jël na ko jàpp na ko Jokal daw na di jëli Kewel jàpp na Jokal jàpp na abit puusal arbitre puusal gisuñu Jokal Kewel Jokal jege na saaku yi ku ci nekk am nga ñaari loxo ci ngemb jàppante nañu ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi jàpp di déglu sa morom Kewel lu a def waaye Jokal yi nga koy xool. dañoo tegante dënn ñoom ñaar waaye Jokkal jege na saaku yi kii bi mu fi mujj ci defet la jóge moom Jokkal kéwél bi mu fi mujj daa mag si niil digganteem ak Tidiane Faye ñoom ñaar kenn amu ci droit def erreur da ko bëgg a bañ na kéwél da ko bëggoon a zongale bañ kéwél benn loxo ba jàppul dugalaat na ko moom kéwél kewel daa bëgg a jàpp kewel fa mu jàpp baax na kewel fa mu rocc na loxo ba moom kewel jokkel mayu ko dara jokkel kewel du ko bëgg a génnee saakuy wala lu mu def waaye li ma ci jaaxal dañoo xeexagul ba léegi jok jokkel waaw kewel daa mel ni daf maa dóor na léegi moom kewel waaye jokkel a ngi jàpp rek ba léegi. kewel bëtt na ko lan lay tànte moom kewel ma ngay forcé di dugg ma ngay forcé di dugal bopp ba kewel a ngay forcé di dugal bopp ba kewel fa nga dugal sa bopp bi baaxul de lan lay tànte moom kewel Jokal jàpp na ba mu dëgër moo ngi koy pousse mu génn saaku yi waaye Jokal daa bañ fatt na angle ba daxay daanu ee eh, kewel tuur na ko kewel bëtt na ko tuur ko bës na ko daan na ko ba jaagi ko Kewel daan na Jokal Kewel daan na Jokal Kewel nee na ngemb loo ci def xaalis wala lan Kewel na ko mooy reculer Kewel la ngay daanu Kewel daanu daw leen jàpp ko jàpp leen Kewel Kewel daan na Jokal jël